di ko jëmale ci yow di ñaan nga jottali ñu nuyoo yooyu ziyaara yu sell yooyu ci bis xalif ak ci njabootu piir yépp ci wàllu diine man nag je suis heureux aujourd'hui démb déjà yàlla tudd waxtu bi ñoo ngi doon liggéey ci cadre préparatoire gàmmu bi ñuy waaj le neuf décembre et muy coïncider aussi avec la cent du Gamou de Pire ici incha allah ñu xëyaat ci suba mu point programme de tournée des familles religieuses de la région de Thiès bi nga xam ne moom lañu décidé woon ngi sant yàlla dem nañu Tiwaawoon nous avons été très bien reçus par le représentant du xalif général mooy suñu wajur suñu kilifa Serigne Mbaye Sy ab Mansour Abdou Abdou moom nekk euh, vraiment première étape bu ñuy santee yàlla góor gi dalal nañu waxtaan na ak ñun ñaanal nañu waaye it ñun ak euh, administration bi ñu àndal ci biir waxtaanam am na ni mu gën a ubbi suñuy bët ci yoo xam ne doomu aadama bu jaaree ci yoon yooyu a ah, mën na am yàlla mën na am nit ñaanal ñu fa nag ay ñaan yu wér ñu jóge fa génn noonu tuuti yegsi ci seeni mbokk yi njaasaan foofu it njaboot ji dalal ñu dalal bu am solo wandak ak teggin ak considération njaboot yi ñaanal fa administration bu Thiès ci wàllu défi yi nga xam ne moom moo nekk suñu kanam xalifa bu ma ubbee par kàddu yooyu c'est bien calculé parce que muy tiwaawoon muy njaasaan ñoom ñëpp dañ ma yónnee ay kàddu nuyoo pour que ma jottali la ko lii ci biir yàlla dimbale na ma jot na accomplir mission bi ma sëriñ mbay si abdou chargé ak njabootu kunta kunta ci Ndiassane alors par la grâce de Dieu délégation bi ak man mi yegsi nañu ci waxtu bi à Pire mm-hmm. suuf su sell si cité religieuse à l'histoire très ancienne démb évoqué nañ ko au bureau balaa ñoo yegg en salle de réunion di wax ne rek euh, ak mbégte bu mag dañ fi duggee tey collaborateurs yi toog préfet Tivaouane mii toog mes amis les maires et anciens députés qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner. Et depuis le début de cette tournée, Mangui avec les acteurs de la presse régionale. ci baalu tuuti di attirer attention Mayoro j'ai remarqué que à comme à Ndiassane da ngay citer tout le monde yàlla def nga fàtte la presse suñ ko mu mënee corriger pour yii di ñëw nga defal ma loolu laa bëgg c'est des partenaires c'est des collaborateurs te ñi ci gën a bëri du sama ñëw bi laa xamante ak ñoom c'est des sœurs et des frères te yàlla tudd ko mu yàgg ñenn ñi dama dem ba njaboot yi dañoo booloo donc du mission gouverneur ak journaliste rek moo ma booleem moom mm-hmm. ne peux pas les citer mais de manière globale intégralement les acteurs de la presse régionale donc euh, Khalifa Papa Abdou moi je suis content et heureux d'être là di ñëw di wax nous sommes venus pour poursuivre la mission parce que liggéey Thiès bi mu commencé yàgg na dire que c'est bien avant ñuy jot suñu indépendance du point de vue des paradigmes de l'administration liggéey bi ñi ko jiitu déjà 1960 commencé nañ ko avec les différents gouverneurs et les différentes administrations booy dugg d'ailleurs bureau gouverneur de Thiès di hmm. nga gis tableau bi ni seen pour yi nekkee hmm. nous sommes venus pour poursuivre la mission hmm. ànd ci aussi avec une ambition une ambition forte d'être aux côtés de toutes les populations de Thiès une ambition forte d'être aux côtés des foyers religieux de Thiès. J'ai salué fortement à l'occasion de mon discours de prise de fonction. njaboot gi nekkoon je l'ai rappelé à Tivaouane ci kanamu Serigne Mbaye Abdou je l'ai de nouveau rappelé à Ndiassane te bu soobee yàlla dina ko encore rappeler après l'étape de Pire à Thiénaba mission bi yaatu na e est plurielle les défis également sont pluriels waaye lu défi yi bëree bëree bëree suñ ko doon tënk ñetti axes prioritaires et ça ci turu président de la de l'intérieur koy jottali kilifa diine yi balaa ma leen di tàllal suma toute première des missions c'est la sécurité de la région de Thiès sécurité de ses populations sécurité des investissements qui dañoo war a jóg après avoir félicité liggéey biñ fi fekk sëriñ bi ñu yokk suñu taxawaay pour nuñ ko mun a defee ñu wàññi yëfu criminalité ak yëfu samba booy ay yëfu saay-saay yi nga xam ne ñu ngi koy noter dans la région suñu bëggee assurer la poursuite du développement de cette région forcément il faut que nit ñi seen xel dal ci wàllu kaaraange en gestion de la sécurité ñu koy ne asseoir un sentiment de sécurité au niveau de criminalité benn état mënu ko combattre ba mu jeex j'en suis conscient benn gouverneur mënu ko combattre ba mu jeex j'en suis conscient parce que loolu dafa ànd ak société humaine la criminalité est certes consubstantielle aux sociétés humaines mais dañu am mission mooy ñi may gunge ni muy man muy préfet yi nga xam ne ñoo ngi ci région dañu war a ériger la lutte contre l'insécurité comme première ci wàllu boobu bala ñoo tàmbali maa ngi sakku ñaan mais que les populations retiennent tout ce que nous pourrons faire dans ce domaine pour anéantir et réduire au maximum possible les faits d'insécurité dans la région moom mooy constituer notre première j'ai déjà dit au préfet jottali ko aussi ci ay kàddu yu leer à mon comité régional de ce point de vue, dinaa leen apporter tout le soutien que les autorités m'ont promis pour que mission bi nekk une mission réussie sëriñ bi ci wàllu boobu ñoo ngi sàkku ñaan ñu teg ci nation pour mu avancer région pour mu avancer commune pour mu avancer même kër pour mu avancer il faut ñu saytu ce qu'on appelle le développement économique et social nit ñi déjà d'abord di am fi ñuy xëy pour développement économique et social ñu bi grand projet yi mu nas au profit de la région ñu taxaw ba projet yooyu di dérouler convenablement ni ñu programme loolu it ñu ciy sàkku ñaan fii ci Pire ak partout fi ñu jaar foyer religieux nous allons nous mettre au service de Thiès pour que l'ensemble des grands projets de l'État et également les interventions des partenaires privés puissent aller à leur terme et être profitables aux populations des trois départements. Les infrastructures, les projets de développement, les activités qui vont permettre de générer de la richesse, loolu bu soobee yàlla aussi gouverneur ak économie ils sont engagés troisième et dernière priorité bi ma chef de l'État fixé mooy que daf ma fàttali loo xam ne xam nañ ko Thiès est éminemment une région de foyer religieux pour preuve la tournée de ce matin depuis notre réveil nous ne sommes reçus que par des khalifes et dans de très grands foyers et nous ne sommes moitié de notre programme. Tivaouane a ngi fii Pire a ngi fii Ndiassane a ngi fii Thiénaba mi ngi de l'autre côté famille Baro mi ngi di côté de Mbour suñu mbokk chrétien yi évêque baa ngi Thiès et les grandes familles religieuses aussi de Thiès mhm. qui nous recevront d'ailleurs après la tournée régionale bu la yàlla indee ci région bu mel noonu war nga attacher une grande priorité à parfaire à améliorer et à amplifier les relations diggante état ak kër diine yi jàng di ko wax les relations entre temporel et le spirituel te Serigne Pape Abdou dama jàpp bu état bi àndee ak diine bi ànd bu rafet ànd bu réfléchi ànd boo xam ne dañ ko xalaat forcément day amal njëriñ suñu région de Thiès et par delà suñu réew le Sénégal en ci dynamique boobu laa nekk et d'ici à ce qu'il y ait de nouveaux changements les trois priorités de l'administration régionale qui lient le résumé. Un, veiller à la sécurité des personnes et des investissements dans la région de Thiès. Deux, accompagner efficacement la mise en œuvre des projets de l'État et également les interventions des partenaires privés. Et trois, travailler à ce que la relation entre le spirituel et le temporel soit un modèle que nous pouvons même vendre dans le reste des 13 autres régions de l'Afrique. donc euh, ci ginnaaw loolu di dellu si waat rek di wax ne maa ngi nuyu waa parce que Il y a de ces visages qui vous regardent, Khalifa. Mhm. Il y a de ces mains qui se tendent à vous. su la yàlla mayee tuuti di nga xam ne que ñii dañ le bëgg. C'est ce que j'ai senti hier en travaillant avec les notables, les religieux, les acteurs territoriaux de la commune. Sentir naa maa ngi ñaan sama boroom moom moo mun a fay yal na leen yàlla delloo yiw yooyu yëpp ak bëgg ak ñaan yi ngeen ma formuler sëriñ xalifa papa abdou mu lay dénk suñu bopp mu ngi sakku ñaan ñaan bi nag wax naa ko ci waxaat naa ko njaasaan Et il ne s'agit pas de propos de circonstance ñii mën nañ ko témoigner votre préfet était mon adjoint au gouverneur dans la région de Matam bu fekkee aussi li may wax ni dëgguwul ci man xam naa dinaa layoo bés ci kanam man ak sama borom njëkk leen ma ñaanal samay collaborateurs avant ñu may ñaan bu ñu wéree bu ñu manee bu ñu amee santé lu ñu song su ma nekkee ci ginnaaw ñoom dinañ ko daal je demande en priorité des prières pour mes collaborateurs de la sécurité et du développement au niveau de la région de paree loolu lu ma ci munti am ci fin bi ma nangoo ko yàlla loolu Et je parle avec toute la sincérité ici, à Pire mm. jërëjëf Cissé baal ma ma ma foofu kaddu yi maa ngi seen ginnaaw mm. et je compte sur les prières en tout cas de ce grand foyer religieux mm-hmm. et du Khalif et notre aîné du reste mm-hmm. il a la voie mm-hmm. administrateur civil dont nous sommes fiers, modèle en termes de toutes les qualités professionnelles et de qualités humaines. je suis un gouverneur heureux de trouver Khalifa Ma, Pape à la tête de la communauté ici. Monsieur le gouverneur, baax li nga wax kàddu yu rafet kàddu yu yéeme man wañu woon aussi démb ci CRD bi ñu def Thiès fi nga nekk tey mooy kër El Hadj Amadou Cissé fii la nekkoon ci bërëb bii moo tax ñu teeroo la moo ne la am na yeneen saal wante fii lañu fi lañu recevoir kilifa bu jaar na fi diriger réew ak yeneen kilifa ku nekk la amoon jàmm muy ci mbiri àddina ak mbiri tarixa bañoon na ko bay wax ni ko moom du nitu tarixa nitu sharia la xam naa ni moo tax doomam ji sëriñ Maodo ñoo def gis xalif général jubu ak kër diine yëpp kër diine yëpp boole ci sunu mbokk yi jàng bi ci njëkk a dem kër gi nga ñëw ñëw nga ci kër goo xam ne ni ko Seydi El Hadji dëgg la woon du ma ci sori mais naa la wax rek loo xam ne dina firi dina firi lu ne bi mu génne àddina en 1980 bàyyi ba alaaj ba alaaj Abdou Aziz Dabaax dafay ñëw jaale si ba mu ñëwee ku toog fële ngeen jaar bu bunt bi mm-hmm. ay personnalité nga foon di compris le ministre Aline Blondin Bèye ministre des Affaires étrangères du Mali mm-hmm. ñu woon jaale si mm-hmm. mu ni sii fi jógee mm-hmm. am na suñ bàyyi loo xam ne même ñun suñ doom am ñu ko woon ana Amadou ana ko jégg ngeen ànd jiit leen ci jàkka bi jóge fa dugg ci néegam boobu loolu ak yeneen ba tey loolu am nga ci moom loo xam ne ñun ko am ndaxte Cheikh Seydi Hadji Malick Sy lii bii ba nga koy bind këyit bi mu bind sama la ko laaj ni ko ni ko ko demal weer yi bu def ko ba mu pare mënu ko ko jàngal moom ndax ndax daal li ma bind bare na mu jàng ko mën ko ah amatu bare na wante mën na ji dund dara rek mhm. kon boo ñaari firnde yooyu rek laa leen wax pour xam ni war fan la toll loolu euh, ñëw ngeen ci foo xam ne sa aajo dina faj di ko wax nag ba ñu bëgg génn àdduna ci benn gàmmu mu sori ci lool ma ni affaire ah, boobu yaa ngi tàggoo parce que ñun bëgg a tàggoo dañu war a nekk seen seen doole mu ni sama laa bëgg la xam fan kontaan bi nga consacré ko ci gàmmu Pire ak waxtaan wi waxtaan bu xóot xóota bi waxtaan sa bureau ak démb ni nga jiitee réunion bi devant vos distingués chefs de service qui sont là vos distingués élus devant le comité d'organisation du Gàmmu de Pire na ko jiitee daje boobu ñëpp dañuy yéemu yal na yàlla mu nga ci cat ndaxte vraiment nit ñi vraiment dañoo dañoo dañoo kontaan dañoo kontaan baax a baax a baax ba bi ñu président de la république indilee gouverneur bi ne ni yow euh, yaatu nga am nga aussi humilité mën nga déglu wante aussi am nga autorité mm-hmm. loolu moom gën a pour pour pour ñu woy kilifa naag chef mais nga nekk kilifa moom yëpp constaté nga ko démb su kaf jotee di kaf su rigueur jotee mais su fekk autorité nag ah loo xam ne loolu da nga incarné l'autorité de l'état da wane moo tax ñu ngi jëm kontaan lool lool lool lool lool lool conclusion yi nga tiré man li may tontu ñëpp dégg na ko dama ne man est-ce naa wax sax war ak naa wax parce que kii wax dafa mel ni que dafa mos a ay CRD yu bari ci gàmmu biir mm-hmm. ndax esprit de synthèse moom ak surtout nag décision yi mu jël ak surtout nag les délais mm-hmm. ça là c'est les qualités de l'administrateur mm-hmm. et Dieu a fait alors euh, yaa ngi bokk ci ñi nga xam ni c'est la fierté de la haute administration comme ni ko waxee jënd mais aussi fierté parmi nos dirigeants parmi nos autorités loolu nag vraiment ñu ngi ci bu baax a baax a baax di gërëm ci attention bi nga accordé ci gàmmu bi fii li ma ci door du bari parce que bëgguma guddal parce que xam nañu sa programme sa agenda alors te man quand même après tout ci état bi laa màgg aussi ak daal ji wante nag alors euh, du man may téye ay autorité ci wax yoo xam ne répétition la rek wala wax yoo xam ni vraiment jaru ko wala mën nga wax beneen yoon nga bëgg a jiite lépp dans un discours kii nag alors euh, moi la gestion du temps ça nit ñi am discipline mais aussi un travail inclusif ñëpp di liggéeyandoo doo xeet kenn voilà alors euh, mën nañu am na <laughs> monsieur le gouverneur vraiment du ñu sori Eh, ñu ngi nuyu kër ñu nga jóge yëpp suñu mbokk lañu suñu xarit lañu ah, yónnee bi ñu yónnee ci ci piir ah, loolu dafa jaadu parce que loolu ca maam la ak ca ak ca bàyyi eh, di la xam ne daal ñun ñu ngi ko wax démb ñu ngi ko gënee ñooy jàppale ni ñu ko mënee sëñ Maodo sëñ Cheikh sama sama rakk yi nga xam ne ja ni nga ko def ay dox ñaanal ko ñaanal ko pour que mission bi xam ne kat alors wax na ko fi bu mën ko réussir soo on n'était pas pédant dañ naa il a on pourrait parler du discours de pire du nouveau gouverneur parce que li ñu wax wax ju la yoo xam ne ñu tibbee ko ci vision ak volonté de son excellence monsieur le président de la loolu ni mu ko waxee leer na leeraay boo xam ne vraiment alors euh, on peut l'appeler le discours de pire mais je sais qu'il est tellement modeste qu'il ne voudra pas alors qu'il en soit donc monsieur le gouverneur voilà lii rek laa ci bëgg a yokk bàyyi tuuti rek suñu gis xale kon ma wax démb mu teg ci moom ay baat yu gàtt comme ni ma ko gàttalee alors vraiment nag pour que ñu mën a jublu ci julli bi ak itam xéew bi